sa xaarkat boo ko bëgg doo ko am fànn. doo ko am doo ko songaan Gueye songoon. ayca. Eh, eh, da ngay dem gorel gorel <laughs> daanuwul booy Kayma daanuwul. daanuwul Kayma kii Kayma la Fatick. non kii la Fatick defaat na même erreur bi. ne woon la ki muy bëreel da newoon naa la da koy xaar. non buur bàyyi naa la. da koy xaar. non buur bàyyi na. mel ni ko gis nga erreur ba erreur ba erreur ba goreel goreel bi yoon da daanu goreel. mbay mbay. mbay Feugeule daan na xaar na ba nax ko daan.